ñu ngi lay nuyu bu wér di lay ziare Mortala Serigne Mortala Ndaw hmm, mel ni mu si ñu ngi jàll ci moom ñu koy laaj it moom it ci maam Moodu ñi nga xam ne moom lay tarbiya xale yi maanaam ci biir daara ji di leen jël ci suuf ba ca kaw maanaam di leen ah, ci alquran ji ci yar bi teggin ji ñoom ak ñoom ñoom ak ñoom ba ca yàlla incha allah nga wax ñu ci rek tuuti bu soobee yàlla ci tënk rek. alhamdulillah wa salatu wa salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsan ila yawmi din asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu leen di nuyu bu baax di leen ziyaar bu baax di jiital ci nuyu bi Cheikh hmm. Mamadou Lamine Diouf di ko nuyu bu baax di ko siyaare bu baax a baax di sàkk ci moom ñaan ñaanal yàlla fi ñu bëggee gi ci yàlla ñu yegg fa barke salaatu faatiha tegaat ci nuyu bi Cheikh Mamadou Lamine Ndaw di ko nuyu bu baax mooy di ko siyaare di ko màggal baax di sàkk ci moom ñaan ak mboolem ko teg ci jotaay bi ngi ñaan daal liñ bëgg ci jotaay bi hmm. ak li tax ngeen teew fi hmm. hmm. yal na yàlla yeggale mébét bi ci barke salaatul fatiha ci yëg ne itam alquran jàng ak tarbiya mooy ànd fi ngay jàngee fi la sunu war a defaree sa jëmm war a defar ba déggee ñu naan sëriñ euh, buy jàngal taalibim bi am ñuy koy xool pour wàllu liggéeyam wala yollu yelwaanam mm-hmm. yooyu yëpp daanaka jarul xool mm-hmm. ndax dañu wax ne jàng mm-hmm. jiim bi mooy eh, ñetti arab la foog naa jàng alquran lañu wax mooy jàng mooy jiim bu njëkk bi mooy jàng alquran boo ca paree yaa ngay dem ca jàkka ja boo ca paree yaa ngay dem ca jàttu ja jàttu ja mooy liggéeyal sa sëriñ waaw ñetti yooyu pour manam nga def ko moy hmm. tax sa barké hmm ay bu manké rek hmm. day tax manam li nga fay wut ca daara ja hmm. du hmm nangul sa sëriñ hmm moy tax lepp lo dugg rek ñu nangul la ay bo nangul sa sëriñ ba nga joggé fi dem ña nanguloon seen sëriñ ah ñooy raw la da fekk kon nangu rek mo warona nek hmm ñu ci ëtt bii hmm. ku fi nekk danga nga jëriñu xataa hmm. ñi nekk ci biti sax hmm. ñoom dañoo gis rek xemem te ñu ngi jëriñu kon ku fi nekk ci biir ëtt bi war ngaa jëriñu sëriñ du Diouf nag dafa tënk ñaari yëf eh, xel mu sariixa wal xaqiiqa xam na koo xam ne xam-xamu sariixa kese lay xam kooku du mën jubal hmm. du mën defare hmm. mom yalla may nako ko pek hmm. ñaari geej yop bu ko si neex lay tank oh. bo bëggee ci yau bahru mu tank jox la nga dem nga yaakaar ne yow bahru bahru yi nan nga ko fekk ne benen bahru bi yow nanu jem ci ah, sëñ Modou Diouf nak moy jëmmi sariya di jëm haqiqa ci misal ci ndeyjoor bi hmm. moom lay wax ne ah. mooy xaqiqa hmm. waaye càmmooy bi hmm. mooy sariha ah. mooy jëmmi sariha jëmmi xaqiqa mooy aynu sariha wal xaqiqa yaxwil muridi lil xaalisil addiyaani waaw ku ñëw ci moom bëgg a deferu te yàlla rek tax dana la defer ba ngay yàgg ba nga jub ci biir ak ci biti loolu yàlla may na ko ko dégg naa ci benn way mu ne yaa taalibal xelmi wal asraari wal niham ñu ne ko foo jëm mu ne farxil li seexil mu xalimu faxtani mi ñu ne ko fañ nga jëm bañ na ko yaa taalibal xelmi wal asraari wal niham yi day woote mu ne yow mii sàkko xam-xam wal asraari ak ay mbóot muy ay sekkere wa nihaami mm-hmm. ak ay xéewal mm-hmm. yëpp mm-hmm. mu ngi ci jëm yàlla ñu Modou Diouf oh. yàlla taxañ na ko ci waaw Serigne Modou Diouf mii yàlla na yàlla dundal yàggal ko fi ne yaa taalibal xelmi wal asraari wal nihaami farxil nag li seexil muhalim ah. bàyyil fépp nag da nga laxasaay jëm ci sëriñ bi ñu ràññe bi bi ñu xam mooy kan mu ne alaaji Modou Diouf ñu ne kan mu ne aniix xaalaka fii sihaati sayidina mooy ëttam ba mm. aneex ri xaalaka mm. fii sixaati sayidina mm. su fekkee bëgg ngaa fees bëgg ngaa xam loo jàngoon ci téere loo ko naw naw boo ñëwee nekkal xottu kese loo yoroon sirfi ko mm-hmm. mu jël la mm-hmm. defer la mm-hmm. sol la bàyyi la nga dem أن يغرق لك في سهات سيدنا الخاجي مودو جوف باي جيل خلق سي لك مو يور لي تارال منديفي تا موي تارال منديفي بارك الله yal na yàlla defal ñu jàmm. amiin yàlla. bii ñuy jont mhm. te egg seegul. Mhm. yal na egg seeg jàmm. amiin yal nañ ko fekkee ñu ñëpp. amiin na ci réew mi jëriñu. amiin ci saayir. Mhm. ak ci baatin. yàlla yal nañ ci yokkoo. ci saayir. ak ci baatin. amiin yal nañ ci defaroo. ci saayir. ak ci yàlla buñ ci yàqoo. amiin bi hurmati rasulillahi. nañ ci am ndam. yàlla bu ci seytaane am wàll yàlla nañ ci am ndam ci biir ak ci biti mu yëkkatiku nag ba faw mu yëkkatiku ba faw mu yëkkati ko ba faw ab li maqaaman hmm. raafiyaan laa masila loo ilaa xalilan ayaas assalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf <laughs> nga ñàkkaa wax waaw waxtoon du baax hmm. jërëjëf yàlla yàlla fay la sa ñaanu xol nga doon ñaan te waxu yëg-yëg dëgg nga doon wax jërëjëf sukkuraan